di leen balu àq di leen bal àq di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole nu jégal di ko doolee ñaan mu sàmmal nu sunu kilifa gu mag gi nekk ci sunu kanam bàyyi ko fi mu lool mu yàgg fi lool te wér lool am tawféex lool yàlla dimbale ko mu àggale yéeneem ci diine ji ak ci yoon wi te nu ànd ko ak moom sunu waxtaanu tey nag ñu ngi ko jëmale ci tomb bu am solo muy digle lu baax ak tere lu bon xëy na waxtaane woon nañ ko ay jamono yu yàgg wala jamono yu bari waaye day tomb boo xam ne jamono yu nekk rek war nañ koy waxtaanee ndax luy war a tal tax ñu waxtaanee ko day bari te day dellu siwaat di dellu siwaat rek ndax ko gis jamono ji ni mel ci safaan yi ni mu baree ak ñiy digle ak ñiy tere it ni mu baree ñi am ca ñu xam am ca ñu xamut loolu lépp nag day waral ñuy nafaraat tomb bii di ko fàttalentewaat ngir ñu mën cee jëlee loo xam ne danañu mën a jariñ ci sunu aw doxin muy tomb boo xam ne nag ci defaroom wala ci amam ci la defarug àdduna nekk ci la defarug alaaxira nekk muy digle lu baax tere lu bon ci ak ñàkk amam si la yàqu àdduna nekk ci la yàqu alaxira nakk ni ko imaamul Xasaali waxee ci ixyaa ulumi diin nee na amru bil maaruf wa nahyi anil munkar digle lu baax ak tere lu bon huwa alxutbul azam fi diin la ko tuddee alxutbul azam fi diin maanaam xutbul azam fi diin mooy keno bi gën a rëy ci diine ndax yeneen keno yi ci des yépp bu amut rek yooyu yépp benn du ci mën a am bu ñàkkee it benn du ci mën a am nee na it mooy yitte ji nga xam ne mboolem yonent yi ñoom moom lañ leen yónni woon ci lañ doon doon dox wa laqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taaquut suñu borom tabaraka wa taala nee na yonent yi yépp mu yónni woon da leen yónni woon ngir ñuy digle jaamu yàlla di tere jaamu lu dul yàlla te loolu mooy digle lu baax ak tere lu bon rek jaamu yàlla mooy mooy lu baax jaamu leneen lu dul yàlla mooy lu bon kon ñoom ñëpp loolu moo leen taxoon a jóg ci lañ doon liggéey ba kenn ku nekk jox ko sa moroom bam agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy mawdo boo xam ne it bu yàgg yàgg la ak doomu aadama maanaam ba doomu aadama sosoo rek yàlla bindu ko da ko boole ak ndigal ak tere ndigal ak tere moo bindu doomu aadama ñoo ànd sunu borom mi ngi wax ci alquran ne ba mu bindee maam Adama alayhi salaatu dugal ko ajjana daf na ko uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan aysu chituma wala taqraba hadihi shajara fa takuna min alzalimin booba la ndigal ak tere commencé uskun anta wala taqraba dëkk leen te bu leen jege ko ndigal ak tere daal nay feeñ ci aaya boobu ne daa ànd ak doomu aadama ci ñëwam mu it loo xam ne moo tax solo googu mu am solo suñu boroom tabaraka wa taala def ko muy fardu kifaaya fardu kifaaya mooy loo xam ne faw am ñu jóg di ko def wàcce ko ña ci des wala bu ko kenn defut wala ña ko def matewuñ ko loolu moom day daal di nekk lu tegu ci kaw xeet wépp ñooy am bakkaar suñ ko defee wàcce ko xeet wépp nañ ko war a defee suñ ko defut nañ ko war a defee xeet wépp ko am bakaar loolu mooy fardu kifaaya wal takun minkum ummatun yad'uuna ila al xayr wa ya'muruuna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkar wa ulaa'ika humul muflixuun nee na it loolu ci la seenuk texe nekk seenug texe am li ngeen bëgg ci àdduna am li ngeen bëgg ci alaxira mi ngi nekk ci ngeen di digle lu baax di tere lu bon kon fardu kifaaya la boo xam ne faw am ñu jóg ci xeet wi di ko def wal takun minkum minkum am ñu jóg ci yéen ñoo xam ne dañuy féetewu loolu di ko def di dégle di tere mën naa nekk sax fardu ayn day dem sax ba nekk fardu ni ci nit ki nga xam ne li muy digle wala li muy tere moom dong moo ko xam te moom dong moo ko mën a digle moo ko mën a tere keneen mënu ko su boobaa moom fardu ayn lay doon ci moom waaye nag si am amma moom day nekk fardu kifaaya ci xeet bi yépp am ñu jóg war koo def wuutu ci ña ca des te it mooy ràññeeku gi nga xam ne moom la yàlla mandarga yàlla ràññee xeetu muhammad sallallahu alayhi wa mooy digle lu baax ak tere lu bon maanaam nee na moo leen tax a nekk xayra umma kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil yéen a gën ci xeet yi waaye li tax ngeen gën ci nag li ngeen nekk xeet sàngam wala li ngeen nekk xeet sàngam waaye li ngeen di digle lu baax di tere lu bon loolu moo tax ngeen gën ci xeet yi xeet yi nga xam ne yàlla mas leen a wàcc ci kaw suuf kon digle lu baax ak tere lu bon lu am solo la ndax fardu ayni la wala fardu kifaaya la ñaareel ba it màndarga la mi ràññee xeetu sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen xeet yi ci des mu am nag ay daraja digle lu baax ak tere lu bon dafa am ay daraja am ay defiin am ay daraja yoo xam ne benn bu ca nekk dañ caa war a jaar door a jaar ca ba ca des du caa génn ku rek moo koy def daraja yooyu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tudd ci benn hadis bu mu wax ne man raa minkum munkaran fal yugayiruhu bi yadi fa in lam yastati yastati fa bi qalbi wa zalika adaful iman muy eh, képp koo xam ne gis nga lu dul noona na ko soppi li njëkk mooy bi yadihi loolu kon day mel ni ñi am baat ñoo ko mën walla ñi am doole bu ko mënut mu soppi ko ci làmmiñam loolu boroom xam-xam yee ko moom bu ko mënut mu soppi ko ci xolam loolu nag jullit bu nekk mën nga ko gis lu dul noona nga naqarlu ko ci sa xol mu naqari la nga bañ ko loolu moom jullit bu nekk fardu ay ni la ci yow moom amut kii amul keneen in inkaaru bil xal bi nag mooy maanaam nam nam nam war a tëddee mooy su su soo soo fabee addis bi da nga koy juutal boo ko juutalee tàmbalee ci xol moom la mujjee waaye yow miy digle lu baax di borom kër wala ngay borom dëkk wala ngay borom réew wala ku mën a doon ku ne wala ngay aalim bu war a digle la ngay jëkke mooy naqarlu ci sa xol li ngay naqarlu su fekkee naqarlu ci xol mën na koo dindi ca ngay tàmbulee xanaa bu ñu xamee ne lii naqari na la nga wone ay mandarga yuy wane na naqari na la ci na ngay xoolee wala na nuyoo wala na ngay jëflante ak ñoom ñoom ñëpp ñi ngay war a digal ak ñi ngi leen war a tere ñëpp xam ne lii kat loola naqari la nga feeñal ko ci say jëflante ak ñoom bañ xam ne lii loola naqari la bu fekkee loola mën naa faj la ngay dindi loola kon loola day daal doy ci yow daal tàmbulee foofu su fekkente ne naqarlu woowu ci sa xol ñu xam ko ci yow gis na naqari na la taxut ñu ba ko nga waar leen ci sa làmmiñ nga weddi nga nga nga dindi lu bon loole wala wala lu safaan boobee nga bañ ko ci sa làmmiñ nga dindi ko ci sa làmmiñ ci waar leen ci laabiire leen ci xamal leen li ci nekk ci ay mbugal wala li ci nekk ci ay coono yoo xam ne mën na leen cee fekk loolu lépp ci waaraate ci làmmiñ lay dugg la ci nekk ci ab yool buñ ko bàyyee waaye la ca nekk ci ab sànji bu ñu ko defee ak yu mel noonu ci ay defin yoo waxin yoo xam ne mën naa am efficacité boo xam ne eh, leneen la du ko am ndax nit moom nu mën a mel waxin wa ngay waxee ak moom ak na ngay jëflante ak moom mën naa tax mu bàyyi loo xam ne boo gënoon a def lu ëpp loola mën na ko bañ a bàyyi ndax wax ju neex ak wax ju nooy wax ju wax ju wax ju ànd ak xikma dafa baax ci nit ki ngay waxal fa quulaa lahu qawlan layinan laallahu yatadakkaru aw yaxsha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 سهل الفلاح الله أكبر li ngay faj bu ko làmmiñ mënut a faj waraate mënu koo faj bégle mënu koo faj xuppe mënu koo faj nag nga jëfandikoo nag beneen bi ci des muy al inkaaru bil yadd nga faj kook nag sa loxo faj kook sa loxo mooy nga dindi ko ca anam nga nga xam ne ca la ko loxo mën a dindee waxoon nañ léegi ne boo xoolee ñett yëpp day mel ni bu njëkk bi moom ñi am doole ñoo ko man borom kilif kilifa yi mooy bil yadd bi ci tegu boroom xam-xam yi ñoo ko man mooy bil lisaan waaye bi ci tegu nag jullit yépp a ko man képp ku gis lu dul noona rek dib safaan nga naqarlu ko ci sa xol wone naqar woowa ci sa xol tam loolu moom jullit bépp mën na ko képp kenn ku nekk yàlla jàppal na la ko kon ñetti daraja yooyu la am benn bu ci nekk nag da koy jëfandikoo ba bam bam bam jeex te joxewut la mu war a joxe nga jëfandikoo ba ca des waaye du dagan ci yow loo mën a wax mu deñ nga nga ngay nga jëf pour mu deñ loo xam ne bu ñu xamee ne naqari na la ñu ba ko nga di ko wax wala nga di ko jëf loolu tàmmuwuñ ko moo tax suñu kilifa yi gis nga bu ñuy diglee dañuy won nit ñi ne rek nangam de neexu leen nit ñëpp xam ne nangam neexu leen ku yàlla jubal taw feexal la nga xam ne neexul sëñ bi nga bàyyi ko ca loola ñu yem ak yow ci loola buñ ca jógee sëñ bi jëlal kàddu boppam waxal nit ñi boppam ne lii de neexu ko ci dëkk bi wala neexu ko ci réew mi nit ñi nga xam ne loola mën na leen a doy loola doy leen suñ demee ba àgg ci nag ñu war a jëfandikoo nag doole ngir dind ko nag boobu moom dañuy daal di jëfandikoo doole ja ngir ngir ngir dindi ko kon ñetti daraja yooyu moom la digle lu baax ak tere lu bon am moom ay sart nag ci ki yow miy digle lu baax ak liy tere lu bon du ne ku ne rek moo koy def ku jóg rek digle lu baax ku jóg tere lu bon déedéet du ne moo koy def ni mu amee ci jamono ji ñu nekk waaye faw mu am ay sart yoo xam ne day daje ci ki koy digle yow miy digle lu baax wala ngay tere ab safaan day am ay sart yu mën a daje ci yow yoo xam ne mooy tax la ngay digle nekk loo xam ne luñ mën a bala luñ mën a def la wala la ngay tere di luñ mën a ba Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu wax na ko ci Jawharun Nafiis ca buntu ba muy waxee al amru bil maaruf wa nahyi anil wala bayit yooyu bam bam ne wa an yakuna amiran bi rushdi wa nahiyan li nusxatin an diddi ab jullit dafa war a nekk kuy digle lu baax di tere safaan dafa bokk ci warugar jullit digle lu baax tere waaye mu ne nag digle lu baax ak tere safaan boobu nag dafa am ay sart sart tudd na ci ñett yoo xam ne moom ñëpp dëppoo nañ ci yeneen yi ci des am nañu ci waroo waaye ñett yu jëkk yi moom ñëpp dëppoo nañ ci nañ sart la yoo xam ne kuy digle lu baax wala ngay tere ab safaan war naa daje ci yow ba ci njëkk mooy nga xam li ngay tere xam ne lii kat lu ñu war a tere la wala lii kat lu ñu war a digle la yow mi tere loolu da nga koy xam waaye du doon kenn ku jóg rek di de di digle loo xam ne xamoo ci lu leer ne digal la lu sariya digle wala xamoo tere la gu sariya tere te loolu borom xam-xam yi ñoo koy ñoo koy xam kon faw yow mi digle ak yow mi tere da nga xam lii ngay digle ne sariya moo ko digle waaye lii ngay tere sariya moo ko tere kon nga xam ko ba ca tegu mooy nga xam ne it boo bu ma ko teree du indi lu ko gën a lu ko gën a lu ko gën a nekk munkar lu ko gën a ñaaw maanaam damay tere lii waaye bu ma ko teree mu indi lu ko gën a ñaaw kon ma ba mooy nga bañ a tere loolee gën a ñaaw nga bañ a tere loolee ñaaw parce que lu ñaaw ak lu ñaaw a ñaaw su munta ñàkk ñu am lu ñaaw li te bañ am lu ñaaw a ñaaw li day daal di nekk lu lu gën te loolu buñ ko xoolee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci doxinam ba ñëwee Makka ba ilif ko da dafa am benn bis mu ne mu ne mu ne mu ne Seydina Sey euh, Seydina Aïcha ne ko sa nit ñii de bu fekkonte ne beesuñ ci ak ak ak ceddo yeesuñ ci nga xam ne biñ tuubee yàggut kon danaa toj kaaba gi defaraat ko ba mel na ko Seydina Ibrahim tabaxee woon waaye booba kaaba gi sell na ci ñoom sell goo xam ne ku ko laal rek boo tuub da nga indi fitna te booba tuub nañ ba noppi waaye nekk gi nekk ci ya mu xam ne bu bu bu ko laalee dana indi musiba mu ëpp mi mu doon daw mu ne kon naa leen naa leen bàyyi noonu ndànk-ndànk di def ak ñoom ndànk di seet ak ñoom ndànk ba mu agsi fi mu war a agsi bu ko defee bu ñu ko dindee fekk na jaahiliya ga dañ na ci ñoom ñu dind ko moo tax booy digle lu baax ak di tere lu bon da seet loolu sóoraale ko ca ndax li ngay digle soo soo ko diglee ni soo ko teree nit ñi duñ def lu ëpp loola wala lu gën a bon loola su fekkee boo ko teree ñu def lu ëpp loola loolu da nga koy da nga koy woyofal bàyyi ko noonu am na benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax ne mas naa romb ci barab ay nit ànd ak ay nit mu dégg ñeneen ñu ne ci barab di def loo xam ne lu dut noonu la naka su dut noona la ñi mu àndal nag sëñ bi doo wax ci ñii doo ci ñii ñii li ñuy def nii jaaduwut mu ne déet baleen li ñuy def jaaduwut waaye ku leen ci jëlee ñu def lu ko gën a yées ndax xëy na fañ nekkoon dañ faa nekk di naan wala ñuy def leneen ak leneen dégg seen bànneex waaye boo leen ci jëlee ci mbedd mi la ñuy dem di rey nit ñi mu ne kon dem ci mbedd bi daray nit ñi nag bàyyi leen ñoom li ñuy def nga xam ci ñoom la yem mu yem ci ñoom moo gën ñu tere leen ku ñu génn ci medd mi def loo xam ne da leen di jéggi dem ci keneen kon kuy digle lu baax wala ngay tere lu bon it da ngay xool ba xam ne du indi musiba mu ëpp ma ngay tere waaye bu ko dee indi rek war nga xam xekk ma bu toll ni négocier ko ba nga xam ne du du du du du àgg ci loola beneen ba ci des mooy yow mi koy tere da ko da nga le woon lii ngay tere am nga kàttanu dindi ko xam nga ñaar yu njëkk yi moom kum daje ci yow mooy nga xam xam na ne du andi lu ëpp li ngay tere loolu yow daa daggan ci yow daa dagan ci yow boo teree baax na boo teree wutit doo ci am yedeel waaye nag bu mujj bi nag mooy nga mën koo dindi nag bu boobaa day war ci yow ñaar njëkk yi bu bu ñetteel bii nga mën koo dindi maanaam xam nga boo teree du gën a andi euh, lu ëpp la ngay tere te mën nga koo dindi tam bu boobaa moom day nekk warugar ci yow nga dindi ko loolu moom kilifa yi ko ñoo ko ban ñett ñett sart yooyu moom bu dajee day nekk ñett sart yoo xam ne képp kum daje ci yow teral lu baax ak dindi euh, dindi lu safaan ba day nekk warugar ci yow woo xam ne yàlla dala ko togg nga war koo def am na ñu ca sart ne war nga caa am ndigalal kilifa bu dee nit ñoo xam ne dañoo am kilifa ni ñun murit yi am na ay digle ak ay tere yoo xam ne kilifa gi moo ko moom du mbirum benn nit ak ñaari nit ak ñetti nit ñoo koy tere ndax buñ ko teree du dañ wala buñ ko diglee duñ ko def waaye kilifa gi moo ko war a digle kon bu loola amee dañ caa war a diglu ndigalal ilimaan ba ndigalal kilifa ga mu digle ne moom mu waxal boppam digle ko wala mu waxal boppam tere ko wala mu sant ku ko digle wala ku ko tere ndax ca ndigal loola ak tereem loola rek ca la nit ñi di toppee loola ndax loolu mbirum ñëpp la du mbirum kenn nit rek yow mu ne ci sa kër sa sa njaboot ak say waa kër mën nga leen a digal lu baax mën nga leen a tere lu bon waaye bu dee loo xam ne mbirum ñëpp la nag bala caa dugg yow di ca wax te loolu du sa mbir bàyyee ko ka ko moom moom bu wax jotee mu wax bu digle jotee mu digle bu tere jotee mu mu tere kon sart boobu it sart bu am solo la rawatina ci ñi ñoo xam ne tënku nañ ci kilifteef ba ca mooy maandu mu ne kii digle lu baax ak kii tere lu bon dafa war a nekk koo xam ne moom li muy digle da koy def waaye li muy tere da koy bàyyee mu ne nag loolu am na ñu ci waroo am na borom xam-xam yoo xam ne nee nañ loolu sartuñ ko ci digle lu baax ak tere lu bon yow doonte ne li ngay digle doo ko def waaye li ngay tere doo ko ba waaye mën nga koo digal nit ba mu def ko mën nga ko tere nit ba mu ba ko yow digal ko mu def rek moom jaanam wàcc yow yaa yaa ci def sa diggante sa borom kon loolu wax nañ ne sartuñ ko ci loola foo mënee digle wala nga tere te la ngay digle ak la ngay tere danañ ko def wala danañ ko bàyyi doonte ne yow doo ko def doo ko bàyyi tam bu boobaa war nga koo def ngir ka ka nga koy digal wala ka koy tere moom mën caa jariñu ci loola ak yeneen sart yu bari yoo xam ne rawatina muy muy nag loo xam ne du looy gëstu ba xam ko lu lu lu sib lañ la la ñuy tere du doon loo xam ne bala nga koo xam da nga koy gëstu ba xam ko nga xam ne da ngay da ngay da ngay nit ki di ko asa secret wu wala nga di ko yëddu wala nga di ko di ko di ko di ko di ko fóon wala nga yooyu yëpp bu ca duggee rek dañuy daal di taxaw bala balaa nekk lu ñuy tere rek day feeñ ba nit ki fësal ko ndax yàlla sunu bon tabaaraka wa la bañ na lu bon lool waaye li mu gën a bañ nag mooy feeñal lu bon ci mbedd bi feeñal lu bon ci mbedd mi loola bañ laa yuhibbu llaahu al-jahra bi suui min al-qawli illa man zulim al-jahr inna alladina yuhibbuna an tasiya al-fahisha fi alladina amanu lu bon moom lu mu bon bon bon rek buñ koy def ci biir kër buñ koy def ci biir néeg buñ koy def buñ koy làq ka koy def di ko làq ñeneen su moom mën nañ ko tolore waaye suñ demee ba mu génn ci mbedd mi nag su boobaa nag ñu war ko ñu war koo faj kon dëgganul ñuy gëstu nit ñi ba xam ñu ngi denc dara ci seen kër wala ñu ngi denc lu ne dañoo ay tegtal yoo xam ne buñ ko gëstoo danañ fekk loola am su fekkee kilifa la goo xam ne wala mbootaay goo xam ne dañu leen a digal loola ñu ñu sib sone nit topp ko ba mën a xam ne kii kat danañ ko mën a jàpp li ñuy wax flagrant délit ñu jàpp ko gis ne kii kat li ñuy tere mi ngi nii di ko def bu boobaa topp googee ñu koy topp moom mbooloo maa koy def kilifa koy def sulta baa koy def waaye du doon kenn nit moo koy def wala ñaari nit ñoo koy ñoo koy def kon yooyu ñu sàmmaale ko ci li ñuy digle lu baax ak li ñuy tere ci lu bon sànj ya nga xam ne nag wala jeexit ya cay topp nag ñu ko defut buñ diglewut lu baax tere terewuñ lu bon la cay digle mooy lu suñu borom tabaraka wa taala wax ci banu israil bañ ko defee kaanu laa yatanaahum na an mun munkarin faaluhu loyna alladina kafaru min bani israil yàlla neen rëbb na leen ndax dañoo mooy yàlla mooy yàlla ga mooy gan mooy daawuñ digle lu baax daawuñ digle lu bon bu ko seen waa kër seeni seeni di def di def kon ñàkk digle lu baax ak ñàkk tere lu bon dana waral mbugalum sunu borom tabaraka wa taala dana waral mbugalum sunu borom dana waral it tasaaroog lu bon lu bon it day tasaaroo waaw te lu bon tasaaroo noonu ñu ko waxee yàlla moom li muy bañ bañ bañ lu bon lu bon liñ def te tasaaroo wut moo ko gënal liñ def ta tasaare ko wala ñu feeñal ko wala ñu feeñal ko eh, eh, eh, bint Yaxsh Seyna bint Yaxsh ci waa yoon yonent bi la bokkoon nee na am na benn bis mu ne yaa rasulallah anuh anuhliku wa fiina al muslihuuna ndax yàlla dana nu alak te nit ñu baax ñaa ngi ci suñ biir nit ñu baax ñi ne ci suñ biir loolu ñun dañ ko faral di wax nit ñu baax ñi ne ci suñ biir yàlla du ñu alak te ñi ci suñ biir ne ni ko waaw waaw isa kasura al xubs isa kasura al xabas dee na lu bon bu baree ba tasaaroo yàlla faaleetut ñu baax ñi day boole ñëpp lay boole lu nit ñu baax baax baax bu fekkee seetaan nañ ba lu bon tasaaroo ne na yàlla day boole ñëpp ñëpp la yàlla boole bugal bugal leen kon loolu mat di wattandiku la ñi war a digle digle ñi war a tere tere te bañ a xaar ba yàlla di maasale mbugalam ci ñëpp ak yeneen sart yu bari yoo xam ne eh, boroom xam-xam yi tudd nañ ko ci digle lu baax ak tere lu bon muy loo xam ne daal faw ñu di ko def faw ñu di ko bay def wut ay kuréel yoo xam kuréel yi nga xam ne dañuy féetewoo loolu di siiwal ñu bon ñi buñ defee lu bon ñu siiwal ko kuréel yu mat a jàppale lañ yu mat a jàppale lañ ndax reeteet dafa baax ci biir mi léeg ñu reeteet lu bon loo xam ne mën naa am nit ñi xamuñu ko mën naa am ña ngi koy jéem a tasaare ci nit ñi ba nga xam ne day mel ni day mujj mel ni lu bon mooy lu baax ku ku gis e, médias yi ni muy doxee léegi ak rajo yeeg télé yeeg yëpp ni ni ñuy tasaaree lu bon dañuy dem ba mujj lu bon mooy mujj nekk lu baax day woyof ci nit ñi ndax lu baree bari ci li liñ daan e, sib démb ci wax ak dégg dem nañ ba léegi kenn sibatu ko ci wax kenn sibatu ko ci dégg ñu baax ñi ñoom ñi nga xam ne sax duñ ko def dégg gi léegi lajalatu leen tànqalatu leen te lool nag moo lu bon a bon la loo xam ne lu lu ko yées amut loo xam ne bañ ko daan wax ci bu njëkk kenn daawu ko dégg ci nopp kenn daawu ko wax ci làmmiñ ñu dem ba mën koo waxtaanee ci suñuy saal mën koo waxtaanee ci suñuy grand place te duñ yëg benn yëg-yëg duñ ko am loolu mooy lu bon bu tasaarooyee day dem ba nekk lu baax nekk lu bon lu bon nekk lu baax te loolu nag buñ fa àggee rek suñu borom tabaraka wa taala rus ñu baax ñu nekk suñu biir waaye dañuy boole mbugal dañuy boole euh, euh, euh, la muy wàcce ci suñu kaw kon yàlla nu yàlla dimbale ba nuy bokk ci ñuy digle lu baax di bokk ci ñiy digle ñiy ab safaan te it boole ñu ci ña nga xam ne la ñuy digle dañ koy def wala la ñuy tere dañ koy bàyyi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam